bismillahirrahmanirrahim a'udzu billahi minash shaitanir rajim ñu ngi ubba ko turu borom bi subhanahu wa ta'ala niki saa su ne dika denk suñu bop tay ñaan yalla lepp di yiw barke mam bay la mu teddam yalla bu yalla yàlla ya ak suñu bop yi ñuy waxtaanee itam tay tomba la ci biir tomba yi bokk ci pass pasi aqida ya, yi nga xam jambi warna farlu lol si xam ko bu bëgg na jaamu gi muy jaamu boroomam yéwén bu fekkee bëgg na jaamu gi muy jaamu yàlla sell la bu fekkee bëgg na jaamu gi muy jaamu yàlla am nag xam ndax loolu mooy jur bànneexu jaamu yàlla am na bànneex bu gaa yi di yëg ci bu ñuy julli bànneex bu ñuy yëg ci bu ñuy tudda yàlla loolu moom yaakaar naa kenn waruñu kaa gën a xam am na bànneex bu ñuy yëg ci woor ak yeneen ak yeneen bànneex la boo xam ne jaamu yàlla da koy jur ci jaam bi te loolu dara du ko waral wala dara du tax mu mën a yomb ci jaam bi ndere bu mu yéwénal mboolem liy sellal ak jaamu ala kulli xaal mu am ay jeexital ci moom looloo tax sunu jàngalekat al imaam Muhammadu Saxiir doon wax ne boroom jaam ñi am na ay meloom yu ko jóg tey jaamu war na nga xam leen boole ko xam yu neen dàpp loolu fuqahaaw yi dañ ko yaxal si ne dafa war si jaam bi mu xam boroomam subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo sos asamaan ak suuf faatiri samawaati wal ard laysa ka mislihi shay'un wa huwa samiun bari basiir nu mu ñëwee ci aaya ko maa ngi jigul suñu ma ko taxañe bañ waxtu wala boog waxtaan bi gudd rek moo tax waaye laa li ma bëgg a foofu mooy ne moom sos asamaan ak suuf subhaanahu wa taala te amul dara yoo xam ne mën nañ kaa nuróole wala méngale wala boobu di ko teg ci wetu borom bi subhaanahu wa taala kawe na taala amma yushrikun kawe naag mbooleem luñ ko mën a bokkaaleel kon ñeel na sunu borom subhaanahu wa taala ay sifaat ay melo yoo xam ne jaam bi da koy xam ngir jaamu gi muy jaamu boroomam mën a yéwén ki ngay jaamu xam ka dina yiwanal sa jaamu dinaa tax nga xam li ngay def naka nga ko war a defee ak naka nga ko war a moytoo defee tey jii buñ la utaloon ab liggéey ci bërëb la ngay njëkk a lijjanti mooy lu ñu bëgg ak lu ñuy bañ ci bërëb wala kii ngay liggéeyal mooy kan ngir nga xam fan nga koy jaar wala boog ngir nga xam naka nga war a doxalee ak moom ba am ngërëmam ala rawati borom bii nga xam ne ay meloom bari na subhaanahu wa taala moom la Ibnu Ashir di wax ca matanam yaakaar naa mën nañ ko def mu mu wéeruwaay ci li des ci melo yi ndax fuqaaw yëpp indi nañ ko waaye ala xaal ñu tànn ci lii rek di ko jooyanteeg waxi imaam Muhammad Saxiir mu gën a doon lu bayaan ci ñun ndax miin nañ kàddu yi la yajibu lillahi alwujud la wax fële lu muy wax ci euh, aqida yajibu lillahi alwujud wal qidam kaza al baqa wal ghina al mutlaq wa xulfuhu li xalqihi bila misaal wa waxdatu zaat wasfin wa fiaal wa xudratun iraadatun ilmun xayaatun sàmmun kalaamun basarun waajibaat yaakaar naa yëpp ñëw muy melooy borom bi subhaanahu wa taala al imam indi ñu ko ci kàllaamay olof si anam bu bu daw yaram waaye anam bu bëri xikma itam pédagogie bu leer la ndax mu ngi wax ne borom jaam ñi am na ay meloom yu ko jóg te jaamu war na nga xam leen boole ko xam yonentam ba mu ne yàlla am te moo jiit képp kuy am ci ak am moy ki fi des ku dul moom neel danay jeex ci àttem ku juuyoo la ak mbindeef fi ci meloom ak léppam ku doylu ci boppam neel ku wéet la ca péyam ba ku am kantan am na mel ku xam bépp xew-xew mooy ku dund ku dul dee moom bu saay ni mel sàmba ku dégg la kuy gis te dinay wax ci boppam ndax waxoon naak Musaa Kallimu dal di koy yan yan ba te mooy aji antan mooy aji namm mooy aji xam xalaati mbindeefam mooy ka koy xam ca xam-xam ba te mooy aji dund mooy aji dégg wax ak ndeey mu ne xorondam way dox caw xeer mu ngay dégg tànkam ba aji gis la mbooleem yëf yi aji waxante la ku koy soob da koy sol leer ba muy dégg baatam mu tëjee que ne yile di yi bur yalla yi war ci mom waxal ni seeni safan melo woko bur yalla da koy jomba kon ci darso tay bi ñu yam ci lolu rek moy ne borom bi subhanahu wa taala dafa am ay melokan yo xamne dang koy xam ngir sag jaamu ci mom mu ne yewen ndax tay ji bo xamul ne borom bi subhanahu wa taala aji dégg la sañ nga di wax ne di wax lo xamne da ka tere gane ah yalla déggu dedet aji dégg la xorondam mooy dox caw xeer mu ngay dégg tankam ba nga loolu sori na te amna yeneen xeeti déggin yu mu lambo subhanahu wa taala dinañ ci ñëw yal borom bi yombal ko sama mbay la mu tedd ma kon nga japp ne amna ay melo melo yoyu xam ka waref la ci yow ngir sa jaamu meuna yewen ñettel ba mooy ni safaani melokaan yoyu bur yàlla da koy jomb melo wuñ saxal fi rek inshallah allah ba day daxu buñ saxalee ne aha kalaam sax na ci borom bi subhaanahu wa noppi day dàqu ci moom buñ saxalee ne gis mu ngi ci moom borom bi subhaanahu wa taala nañu koom gëmm gumba ñàkk xool subhaanahu wa taala jomba na ci moom diddu haasihi sifaat naka borom téere bi indee rek kon yàlla nañ doyloo loolu te mu yëwanalu ñun suñu jaamu barke Maam Baay la ñu tëdd ma waaxit daawaana alhamdulillahi rabbil alamin